ay ñun génn si ay mbokk internet yi comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi monsieur le de la ville de Guédiawaye monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ngeen gis noonu noonu di génn si cité bi di dem préparation pour la marche aujourd'hui comme ni ngeen ko gisee Ahmed Aïdara noonu waaw di génn noonu cité bi Aliou Sow waaw seul la lutte libère dafa leer monsieur le maire ngeen seen noonu dafa doon di déplacé wu di génn cité bi ah, dem rassemblement dem fekkee ay militant am fekkee ay militant am di génn cité bi c'est le maire de la ville de Guédiawaye noonu El Hadj Ahmed Aïdara mu ngi am noonu seul la lutte libère. le peuple est souverain ngeen ko gisee noonu monsieur le maire a ngi noonu di génn c'était dit maire de la ngi noonu di génn c'était dit. waaw monsieur le ngi noonu biir Guédiawaye di dox nànk. wutali fi nga xamante comme ni ngeen ko gisee noonu le maire la ville de Guédiawaye Ahmed Aïdara ngi noonu di dox nànk di dem le maire ngi noonu di dox dem waaw comme ni ngeen ko gisee noonu exemplaire ngeen am noonu muy dox di ñëw mbokk internet yi comme ngeen ko gisee Ahmed Aidara fii ci ville Guédiawaye mi ngi noonu di génn këram di dem fi nga xamante ne nii moom mooy siège am fii ñii lañ jëm mu fas yéene jóge foofu après dem ci marche bi nga xamante ne moom la opposition bi woote muy la coalition Yewwi Askan Wi voilà comme ni ngeen koy gisee monsieur le maire mi ngi noonu di dox di dem dafa dox nank génn këram dox tali Guédiawaye di jubal di dem waaw comme ngeen ko gisee monsieur le maire moo ngi noonu di dox di dem dafa leer leer waaw monsieur le maire a ngi noonu ngeen koy gis waaw mi ngi di ñëw mi ngi noonu di ñëw comme ni ngeen koy gisee noonu monsieur le maire population bi yëpp nañ ko génn leen marche leen am ngeen ci droit la marche est un droit constitutionnel kenn mënu ko empêcher kenn voilà c'est pas Macky Sall moo ñuy dicté dañuy war a marche wala duñu war a marche mi ngi noonu le maire a ngi noonu di dox di dem moo ngi noonu comme ni ngeen koy gisee noonu ci image fii la génnee këram di dox naa ko wutali fi nga xamante ni moom mooy euh, siège am fa lay dem préparer pour après dem fi nga xamante ne ni moom mooy match waaw la délégation du maire comme ni ngeen koy gisee ñu ngi leen di dox ñëw voilà. Ой, дракон, я всегда чекусь. Continue, ya. Continue, continue. ayca salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ay xel réew mi ki ngeen gis nii nag du leen ko présenté yaakaar naa ne réew mi ñëpp ko xam képp koo xam ne taataalam ci sàll li mu nekkee neexu xàmmee nga ko képp xam ne également euh, li muy xeex moom ngeen di xeex xàmmee nga ko muy le maire de la ville de Guédiawaye nekk également euh, leader ci coalition Yewwi Askan Wi ñi ñu doon wax nag ne marche bi du am ñooñu ñooñu noonu dañoo wax lu leen neex wala ñooñu moo ñooñ mooy ñi faral Macky Sall ñooñu mooy ñi nga xam ne li Macky Sall di def neex na leen ñooñu mooy ñi nga xam ne li Macky bëgg la ñu bëgg ñooñu ñooy saboteurs yi ñooñu ñoo bëgg a taal réew mi ñu ngi dina di dox di dem mairie de la ville lañ jëm buñ fa paree ànd ak ñi nga xam ne li Macky nekk neexu leen ci kattanu yàlla ak baaxam ñu ànd ak askan wi ànd ak peuple bi dem fële nga xam ne également mooy le di place de l'Obélisque fexe fa moom la réew mi di ñaxtu ñaxtu également li nga xam ne moom tamit di ñaxtu ayca le maire de la ville de Guédiawaye moo nekk noonu dans sa ville ànd ak askan wi ànd ak ñu dox doxali fi nga xam ne également mooy mairie de la ville bu ñu fa jógee ànd ak waa Guédiawaye dem place de l'Obélisque xeex comme ni nu xeexe woon Ablaye Wade bi mu naree jalgati démocratie xeex comme ni nu xeexe woon Ousmane Sonko biñ ko naree faagaagal xeex également ba Macky Sall li nga xam ne moom la bëgg a def ci euh, ci euh, élection législative yi nga xam ne jaarul yoon jaarul dëgg ñu xeex ko également ba am liñ ñu ngi dox dem képp ku nekk sa kër ak képp kuy seetaan rek nga koo partagé képp koo xam ne également yaa ngi seetaan mën nga koo partagé parce que tarkalla macha allah seul le peuple seul le peuple libère comme ni ko sama waaj yi ci kanam di di di waxee voilà noonu la demee noonu la demee noonu la demee. noonu la demee. moo ko fiy jëlee. ay ca yow mi nekk sa kër mën ngaa partagé parce que. marche bi day am par force ñu autoriser ko ak ñu ñàkk ko autoriser parce que Macky Sall ci boppam mooy jox ay nitam ñuy autorisé ak ñu ñàkk autoriser mbii nag peuple bi moo ko autorisé bi mooy jox mooy dem xeex ak moom ba li nga xam ne moom la bëgg a def te jaaru ci dëgg jaaru ci yoon yéen peuple bi ngeen jóg ñu xeex leen xeex ko ensemble maire de la ville de Guédiawaye ngeen di gis noonu di dox jëm maire ba buñ fa jógee ànd ak waa yeewee askan wi dem fële sa place de l'Obélisque ay ca ñu doxal ba léegi. parce que bu ngeen fàttalikoo Macky Sall bu ñu ko rappelé 2011 loolu la fi waxoon Ablaye Wade bi muy jalgati démocratie bi moom ci boppam moom jiitu réew mi ci boppam moom moo décidé woon moom moo joxe woon digal à ce que ñu dem fekk ko fële nga xam ne mooy ca palais ba daal di léegi nag kon tey yaakaar naa ne bu fekkee ne Ousmane Sonko da koo bëgg a éliminer ki nga xam ne mooy Aïda Mbodj éliminer ay Habib Sy éliminer nga xam ñi nga xam ne ay leader lañ ñi nga xam ne aga également éliminer Khalifa Sall ñi nga xam ne également ay leader lañ réew mi moo leen ñor kon yaakaar naa ne loolu noonu buñ ko bàyyee mu jàll maanaam troisième mandat bi moom day leer parce que dina am majorité assemblée nationale jalgati réew mi def lu ko neex loolu nag ñun ñoo war a jóg monsieur le ba buñ fa jógee àndaat ak askan wi dem place de voilà ay ci ba léegi ngeen rejoindre direct bi fii ci EFM ngeen ànd ak le maire de la ville de Guédiawaye ngeen dootu leen ko présenté yaa ngi dégg borom oto yaa ngi romb naan libéré leen peuple bi te peuple bi également ni ñu koy libéré nee na kese la mooy ngeen génn mooy li Macky Sall teg ni tànkam ñu ni ñu gën teg si tegee benn tànk ñu teg ci mille tànk ànd moom xeex wan ko ne réew mi moomu ko te loolu noonu yaakaar naa ne yéen yéen yéen la war yaakaar naa ne waruñu ñun ñi nga xam ne également waru waa kër Macky Sall yi ndax bu fekkee ñoom ak ñooma jalgati dong moo leen moo leen moo leen moo barki démb rek démb la la ministre de la justice ñëw fii ci Géejawaay ministre de la justice mooy boo xam boobu Sall Sall am benn am benn jegeñaaleem ku ko jegeñ ko umi la tudd xam naa ko bu baax benn jegeñaaleem ku jigéen waatal ma di waat di waat ne ma billaahi wallaahi tallaahi par A ou par B dañuy am troisième mandat Macky Sall bay génn réew mi te lool noonu li koy mooy bu ñu leen éliminé ci législative yi bu ñu leen éliminé yéen ci am. majorité assemblée nationale voté ko par A ou par B 2035 la fi nag bu yeboo ngeen bàyyi nag da ngeen ciy bàyyee xel mooy nii du toog seen kër teg seen njarum galaas du toog seen kër di añ di toog seen kër yor seen i fourchette di capp seen i jën non non non non non non ngeen wàcc ci tali bi sol seen ferme fermé sol seen yëre taxaw jàkkaarloog Macky Sall loolu dong moo fi mën a jëlee Macky Sall comme le fait le maire de la ville de Guédiawaye actuellement monsieur Ahmed ay te boo nekkee moom ba ngay fexee nekk baddoola ko moom et que euh, mu nekk loo xam ne aussi tamit c' est la respons c' est la responsabilité de tout le monde ku nekk fa nga nekk nga jóg ñëw taxaw wane ne wane ne kontaan wane ne également bégoo ci li nga xam ne Assane Fall moom la Macky Sall nekkee ci réew mi te yaakaar naa ne loolu noonu c' est pas un combat de Ahmed Aïdara c' est pas un combat de Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala Aïda Mbodj wala Habib Sy mais c' est un combat de tout un C'est un combat de tous les Sénégalais. De montrer à Macky Sall qu'on n'est pas content. De montrer à Macky Sall ne sera jamais d'accord et que yaakaar naa ne loolu aussi tamit lu am solo ay te ñu doxal ba léegi maire de la ville de Guédiawaye ngeen gis noonu moom mi ngi commencé marche jamale fi nga xam ne mooy mairie de la ville bu fa jógee ñun ñëpp dañuy ànd ak moom ak kati kati ñëpp ànd ak moom également dox jëmale fi nga xam ne mooy place de l'Obélisque parce que par A bu par B dinañ wan ne Macky Sall sénégalais yi doyal nañ ci moom Macky Sall sénégalais yi bëggatuñu ko Macky Sall sénégalais yi ñoo ko vomi ñoo ko wàccu te amul lu muy wax amul lu muy def ba jiite waat fi mënta nekk amul fu mu mën a dem ci àddina même bu demoon indi l'armée ukrainienne même bu demoon indi fu mu mënoon a dem indi armée américaine du tax mu toogaat ci réew mi parce que sénégalais yi sénégalais yi déterminé wu déterminé wu ñan sénégalais yi engagé wu nan sénégalais yi carrément taxaw nan carrément que ni Macky Sall doy na te doy na googu noonu également lii nii année des preuves irréfutables c'est-à-dire que manifestation le 8 bi ak tey le 17 bi ak yeneen ñi fi jot a jaar na ne que sénégalais yi ça montre en suffisance que sénégalais yi doy nañ ci Macky Sénégalais yi en ont marre les Sénégalais en ont marre ce régime de Macky Sall c'est un pouvoir finissant doyal nañ sëkk sëkk sëkk ci moom te nag gisuma lu tax Macky Sall maanaam di fi toogaat te loolu noonu di ngeen ci am lu leen leer parce que dinañ def bu dee wax dinañ ko wax bu dee jëf dina jëf bu dee xeex la dinañ xeex également pour que Macky Sall quitte ce pays pour que Macky Sall génn réew ay dara ngeen gis noonu voilà maire de la ville de Guédiawaye maire ci coalition Yewwi Askan Wi ñu reconduire ko également ci député yi pour mu mën a mu mën a présenter ki nga xam ne mu mën a représenter autant pour moi à sa population di di Guédiawaay waaye représenter li nga xam ne mooy Sénégal parce que moom je pense que bu ngeen di xoolee ci ay c'est pas parce que Guédiawaay parce que Guédiawaay fi la xeex na ba nekk maire xeex na ba nekk député te nekk député incha mais tamit dafa war a gën a xeex xeex pour njariñu askan wi xeex pour région yi nekk si Sénégal yëpp je pense que c'est important et que loolu noonu également ci lañ nekk nii loolu noonu également ci lañ dox nii que la manifestation soit autorisée ou non on ordre dañ koy def par A ou par B et que je pense qu'aujourd'hui euh, euh, euh, la décision la décision en est prise et que cette décision là personne n'y peut rien parce que c'est la décision du peuple personne n'y peut absolument rien parce que par A ou par B et que et que yaa ngi rond-point Malibu. puy bu ñu décidé kenn mënu ci dara. La lutte continue jusqu'à deux semaines. Si Macky Sall ne lâche pas, les Sénégalais ne lâcheront pas. Et aussi c'est très important pour que gars yi xam loolu noonu ñu ngi doxal ba léegi euh, ak le maire euh, de la ville de Guédiawaye euh, Macky bu bàyyiwul ñun du ñu bàyyi. et que rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra arrêter également euh, à, la décision du peuple. Parce que la décision du peuple, c'est la décision divine. C'est parce que mbooloo bu nu bu nu jëlee seen kaddu loolu kaddu suñu borom la te kaddu yàlla yaakaar naa ne pour nga daan ko yombul et effectivement c'est comme ça que ça se passe ñu doxal ngeen xool ñu dem ngeen xool su boobaa di ngeen xool ba xam ndax man li ma leen wax am na wala amul parce que mbooloo. bu nu àndee rek yàlla da cay dugal loxo te yàlla lu mu dugal loxo rek loolu day am ndam incha allah rabbi ñu way ba léegi oto yaa ngi ralentir ñëpp a ngi naan ko Ahmed Aidara ñun ñooy Ahmed Aidara on est content de vous Ahmed Aidara yéen a ngi instant bii ku romb gaa yaa ngi taxaw na non Ahmed buñ sañoon mel ni yow nous sommes Ahmed Aïdara c' est parce que c' le peuple qui parle actuellement yaa ngi dégg collection taxi yi taximaan yi yaa seen maire bële yaa seen tout le peuple et ñëpp a naan ko Ahmed nous sommes vous parce que carrément dañuy xam ne Ahmed li muy xeex ñoom seen combat et que c'est ce combat que Ahmed porte c' leur propre combat et je pense que aujourd'hui di ci am lu leen leer parce bi autorisé nañ xaaruñu sax te cette fois ci nag day gën a saf parce que ñun xaaruñu ay Macky Sall di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu noot xaaruñu ay Macky Sall di ñu di ñu di ñu di ñu di nax maanaam xaaruñu ay Macky Sall di ñu jox ay autorisation parce que intérêt personnel am lay lay xool intérêt moom ak ay mbokkam kese kese la Macky Sall di xool et que je pense qu'aujourd'hui loolu noonu di ngeen ci am lu leen parce que fi ñu nekk nii fi ñu nekk nii di Guédiawaye dox jëmale mairie ba waaw maa mel ni daa mel ni Omar Omar daa mel ni daa mel ni danoo waxoon ne xaw ma préfet dafa tere woon xaw ma d'après li li li ma dégg mais ma ci lu ma leer lan la préfet woon. Ah, leer na waa Guédiawaye suñu génn. waa Guédiawaye yëpp génn nañ. waaw voilà gis nga ay éclaircissement da baax parce que gis nga géejawaay tout géejawaay est sorti c' est parce que préfet wax ne géejawaay du ñu kon looloon yaakaar naa ne aussi tamit information bu am solo la boo xam ne Omar Ndiaye moo ñëw jox leen ko di le bras droit du maire de la ville de Guédiawaye et que tout Guédiawaye est sorti tout le peuple est sorti c'est parce que euh, euh, le moment est venu c'est parce que l'heure a sonné c'est parce que le moment est venu pour Macky Sall pour que et ses enfants, pour que Macky Sall et ses fils et ses filles quittent ce pays. Parce que Macky Sall n'est pas avec des responsables. Macky Sall pas avec des gens qui aiment le pays. Macky Sall pas avec des amoureux du pays. Macky ne voit que son intérêt personnel. Macky ne voit que son intérêt avec ses propres fils et ses propres filles. Et que c'est ça que les Sénégalais, que tous les Sénégalais déplorent. Et que aujourd'hui, di si am lu leer parce que fi ñu nekk nii ci li ñu nekk nii kenn mënta bàyyi ko. kenn mënta nax tax ba bàyyi ko. dañ ciy nekk dañ ci nekk c'est parce que c'est parce que dañ nekk. sénégalais yi am nañ contentement. sénégalais yi aussi tamit maanaam tey dañuy bég bég nañ parce que bég gi mooy génn gi. te xam nga kañ gën a kontaan mooy que Macky Sall refuse euh, cette marche mooy que Macky Sall. interdire li nga xam ne également mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy manifestation pacifique c' parce que moom si c' est si si jamais mu nekk une manifestation violente c' est parce que Macky Sall ci boppam moom moo bëgg loolu et je pense qu'aujourd'hui sénégalais yi yeewu nañ je pense qu'aujourd'hui sénégalais yi li doon xeex 2011 te Macky Sall jiite woon ko moom la ñuy xeex en te ci kattanu yàlla noonu Abdoulaye Wade sénégalais amoon moom ci moom ndam noonu la sénégalais di am ci Macky Sall ndam que li ci kanam rawati ba nan doxal ay te tout le peuple parle parce que effectivement effectivement combat bi c'est pas un combat personnel combat bi c'est pas euh, un combat urbain c'est pas un combat communal. Ce n'est pas un combat villageois, mais c'est un combat de tout un peuple. C'est un combat de tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais doivent sortir. Oui, absolument. Sénégalais yëpp a war a génn. jóg jaru leen bu leen lekk bu leen naan. Ne mangez pas, ne buvez pas. Parce que l'heure a sonné, l'heure est venue pour que les Sénégalais disent à Macky Sall pour que les Sénégalais montrent à Macky Sall qu'on en Voilà. Donc sortez de chez vous, venez nous rejoindre, ñu ànd ak yéen ci combat bi. Policiers yi ils sont ils sont en face vous voyez ils sont en face avec le maire de la ville de Guédiawaye vous voyez les policiers ils sont face avec le maire de la ville de Guédiawaye vous voyez ils sont venus nombreux ils sont venus vous voyez à Guédiawaye ana ngeen policiers yi ñoo taxaw nii di jàpp Ahmed Aidara policiers yi ñoo taxaw nii di jàpp Ahmed Aidara nee ko dañoo interdire li nga xam interdire li nga xam ne mooy mooy mooy yaa ngi dégg ils sont venus pour l'arrêter ils sont venus suasana kelemahan hanya menjadi peristiwa banyak. kilifa la bu ko fi ay ragal nekk fi fi ay ragal a la fi ay ragal nekk fi de. Vous voyez les policiers avec Ahmed Aïdara yéen a ngi seen policier Guédiawaye yéen a ngi seen policier a ngi les policiers vous regardez la vous regardez ça vous regardez policiers yi seen patron seen chef dañuy jël di ko bimax mais du fi amee. et Badara Badara Badara Ahmed mooy sa chef la situation ak Guédiawaye policiers yi ñëw nañ fekk Ahmed Aïdara di ko jaay di ko jaay doole waaye ni mu jaay amee ay doole fii si géejo waay gis ngeen police bi tere ko ne doo fi jaar dox dox marche droit constitutionnel am na droit dox pour lan ñu ne ko doo fi jaar xool ngeen koy mal ma dee lii c'est pas normal c'est le Sénégal n'est pas un état de droit Macky Sall doit arrêter Macky Sall doit arrêter avec sa police avec sa police politique avec sa police politique on doit pas l'accepter Macky Sall doit arrêter avec sa police politique oui président kati kati eh jibi maa ngi dégg yéen a ngi ànd rek OSR Monde àdduna bi yëpp ñu koy gis. monsieur le maire Ahmed Aïdara le maire de la ville. moom la police yi arrêté nii la police politique de Macky Sall. la police c'est la police politique. la police politique la police politique. bu ñu la arrêté continuer cette marche on va continuer cette marche par A ou par B. Oh, la ville de Ahmed Aïdara. vous ne pouvez pas nous arrêter on va continuer par A ou par B. personne n'a le droit d'arrêter un maire de la ville de circuler dans sa ville. La police politique de Macky Sall est en train d'arrêter Ahmed Aïdara et ce qui est inacceptable nous n'allons pas l'accepter. nous ne l'accepterons pas. Sénégal te fii la jógee on fera face à Macky Sall. on fera face. Amay dégg. Yaa ngi jéem a delloo sax. ñun maire xale la ñu yor Fabara il faut ngeen xaw ma commandant xaw ma com xaw ma commissaire xaw ma commune du dara ñëw jàpp Ahmed Aidara di ko song di ko dóor te muy bàyyam. yaa ngi dégg cette politique ñëw arrêté Ahmed Aidara di ko malmené a torturé ne passera pas ça ne passera pas et ça ne va jamais se passer. ils sont en train de parler Ahmed Aidara accepté saa xaaral nga mën la police Regardez cette police-là. Ça va arrêter Ahmed Aïdara. Regardez, regardez ce qu'ils sont en train de faire Ahmed Aïdara, les policiers politiques de Macky Sall. Ils, ils sont en train de, de le malmener. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à, à Ahmed Aïdara, le maire de la ville de Guédiawaye. Regardez bien en direct. sur ASR Mène regardez bien ce qu'ils sont en train de faire à Ahmed Aïdara il faut bien regarder. regardez ici à Guédiawaye il faut bien regarder les policiers sont venus nombreux. bi Thank you. voilà comme ni ngeen ko gisee arrestation du maire Ahmed Aïdara ñu ne ko doo génn këram moo ngi ni moog policiers yi buuxante bu méttee métti fii si Guédiawaye ñu ne ko le maire du génn këram le maire Ahmed Aïdara euh, police moo ko doo arrêté partisan yi ne doo ko arrêté voilà c'est du n'importe quoi dans ce pays un maire de la ville qui ne sa ville le maire de la ville de Guédiawaye Ahmed Aïdara il est en train là d'être arrêté par la police Ahmed Aïdara la police est en train d'arrêter le maire de la ville comme vous le voyez le maire de la ville Ahmed Aïdara est en train d'être évacué le maire de la ville Ahmed Aïdara est en train d'être évacué maire de la ville comme ni ñu ko gisee par la police. waaye ouais. ça c'est de la ville ne doit pas être subir ça ça c'est inacceptable ce régime mais, mais ça c'est inacceptable de la ville comme ça. maire de la ville qui est en train arrêtés par la police. Non, mais il a le droit de marcher. Il marche pas. Non, mais waaw ay conditions ay conditions te gannaaw dëkk bi daa am ay conditions. mënoo ni maay mairie de ville Guédiawaye. damay bloqué nit ñi. non parce que wut dafa dem fële laa ko jël waaw fële laa ko jëlee. waaw booy dox di marché. nit ñi dañuy liggéey ci kaw tali bi nga dox ci kaw tali bi. wala ka oto yi depuis fële ba fii ni da ngay da ngay da ngay marché ñëpp ay nit la mais da nga koy nit da ngay teg ci condition mais du maa moom li du man disagree. I good for comme vous le toujours le maire de la ville, entré arrêté par la police. Vous voyez la police, le maire Ahmed Aydara, avec la police. Comme vous la police est en train le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aydara. Ça chauffe à Guédiawaye, ça chauffe, ça chauffe à Guédiawaye. ça chauffe à Guédiawaye ça chauffe à Guédiawaye le maire est en d'être arrêté par la police comme vous le voyez le commandant est là le maire de la ville de Guédiawaye en train d'être arrêté par la police ce qui est inacceptable le maire a le droit de se circuler où il veut bàyyi leen jàmbur meeru Guédiawaye la Guédiawaye ñoo ko tey fal bàyyi dugg na dugg ci otom otom na dugg ci otom bàyyi leen ko ubbil otom na dugg ci otom ubbil otom moo gën a jege ji bi ci otoom voilà militant yi nee nañu am na ko dem da koy dugg ci otoom nee nañu am na ko dem da koy dugg ci otoom bàyyi ko mu yëg ko ji bi vous la police, politique de Macky Sall. Macky est un dictateur, Macky Sall La police politique est en train d'être par, vous le maire. Comment on peut faire ça à un maire de la ville dans un, dans un pays de l'état droit, dans un pays de l'état droit, au maire de la ville, qui a été emporté par la police. Ce qui est réceptable. Le dictateur Macky Sall est en le maire de la ville Voilà, comme vous le le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara est en train d'être par la police. Comme vous le la police est sortie de Guédiawaye et nous sommes dans le maire, le maire de la ville est en par la police. Comme vous le ici, en à Guédiawaye, les militants d'Ahmed Aïdara sont en de... waaw waaw waaw ay ay foofu amoon ah le police voilà le maire de la ville comme vous le voyez est en train d'être arrêté d'être arrêté par la police Guédiawaye Guédiawaye le maire est en train d'être arrêté police jàpp nañu Ahmed Aïdara dugal nañu ko ci oto bi dugal nañu ko ci oto bi le maire Ahmed Aïdara mu ngi noonu ñu dugal ci oto police bi maire de la liberté voyez, le maire de Guédouaï a été arrêté par la police. Vous voyez. La police arrête le maire de Guédouaï avec quelques de ses partisans. Voilà, non, même vous pouvez, non, police, vous Oh! voilà moo ma ko internet yi comme ni ngeen ko gisee noonu la demee voilà euh, police bi nga xamante ne ni moom mooy police bu Guédiawaye euh, jël nañ la maire yóbbu ko waaw mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu la demee monsieur de la ville de Guédiawaye jël nañ ko jàpp nañ ko jàpp jàpp ba yóbbu ko ñu ngi noonu comme ni mu seen le maire Guédiawaye a été arrêté. capitaine Ndeye nañu def taal Ndeye commissariat bi. les Guédiawayois demal demal demal le maire de la ville Ahmed Aïdara a été arrêté par la police de Guédiawaye comme vous le voyez nous appelons toute la population de Guédiawaye au, au commissariat de Guédiawaye toute la population de Guédiawaye à la au commissariat de Guédiawaye Guédiawaye ñëwal commissariat wu Guédiawaye Guédiawaye ñëwal commissariat wu Guédiawaye Guédiawaye ñëwoon commissariat wu Guédiawaye képp ku dugg Guédiawaye ñëwoon commissariat wu Guédiawaye voilà doomu jaay doomu jaay rek ñëwoon commissariat bu Guédiawaye ku dugg Guédiawaye ñëwoon commissariat bu Guédiawaye képp ku dëkk Guédiawaye ñëwoon commissariat bu Guédiawaye képp ku dëkk Guédiawaye mënu maa dagg mënu maa dagg mënu maa dagg day ñëpp sa audio na portable sa portable day dagg direct sama def audio direct bi day dagg géejawaay leen képp kuy géejawaay ñëwoon commissariat bu géejawaay Ahmed Aïdara est arrêté à géejawaay Ahmed Aïdara est arrêté à géejawaay géejawaay ñëwoon commissariat bu géejawaay le maire de la ville génn na gërëm di dox police na ko jaar police état bi ñoo ko jël may wax ak yéen Ahmed Aïdara mu ngi nii ñu yóbbu commissariat bi nga xamante ni moom mooy commissariat bu géejawaay te police baa ngi nii ñu jiit leen journaliste yaa ngi nii di wax ah, le maire de Nous appelons tous les fils et dignes fils de Guédiawaye de venir à, à, leur maire. Guédiawaye ñoo ko élire c'est pas un homme Macky et sa fils et sa petite euh, frère Aliou Sall Aliou Sall qui est derrière et Macky son frère ñu gagné leen mënuñu ko wannaasu bu ko jàpp Ahmed Aïdara di ko di ko yóbbu nii à la police à la commissariat nous appelons tous les fils de Guédiawaye à venir résister résister est un droit constitutionnel personne ne peut nous de marcher sortez partout dans le C'est inacceptable ce qui est en de faire Macky Sall. Nous appelons toute la population de Guédiawaye à venir au commissariat de Guédiawaye. Ñu tëggee Guédiawaye lépp tous les hommes, tous les patriotes, sortez, sortez et venez à la commissariat de Guédiawaye. Voilà. Ahmed Aïdara est arrêté, le voyez dans les images. il est assimilé actuellement à la police de Guédiawaye. Voilà, vous pouvez constater avec d'autres de ses partisans. Oui, ils sont tous arrêtés. Voilà, ils sont actuellement au comme vous le voyez avec la force sécurité et de défense voilà nous appelons tous les les députés ñu looy la bëgg masuma arrêté live bi day dagg quoi masuma arrêté sa programme live bi moo arrêté ko xoolal live bi mooy génne nit ñi voilà di ngeen ko le maire de la ville de Guédiawaye moom la police bu Guédiawaye jàpp noonu di ko yóbbu comme vous le voyez voilà police baa ngi nii comme ñu ngi nii di bi dem si police téye leen oto yi téye leen oto yi téye leen bu leen police bu kenn egsi. oto yi oto yi dugg oto yi a bu kenn egsi boo doon oto yi dugg leen si biir mairie bi oto yi dugg leen ndey yi si biir an le maire de la ville de Guédiawaye Ahmed Aïdara arrêté par la police comme vous le constatez mairie baa ngi nii waa mairie bi ñu ngi nii oto di avancé di dem le maire Ahmed Aïdara est arrêté par la police ak Omar oui ak Omar Ndiaye son collaborateur et B52 B52 ak Amalis avec trois personnes arrêtées

nga xam ne ñaareel tale bi dafa baare tale xoolal ñu ko dafa kër yi xoolal ñu ko dafa kër yi dañ koy sànni ay dafa naa leen ko ñoo ñoo dugg si biir yow kat kat yi dañ koy baare ko ba pare mel waaw mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu la demee toujours comme ni ngeen gisee noonu si image yi monsieur le maire la yëpp yóbbu ko si commissariat bu Guédiawaye ñun ñu dem police ñu dem police kaay dem police sama téléphone doo dugg ci tur bi def ak Badara jarul ñuy dugg ci mairie jarul ñuy dugg ci mairie xam ah, nga fii administration la jarul ñuy dugg ci mairie ak dañ bàyyi oto yi foofu rek comme vous le constatez Macky Sall le dictateur Macky Sall. Pape Pape damay direct Pape. am nañu yëngal nañu leen dox nii jom. waaye jëm ko mais dañu joxal seen tànk ñu mbooloo mi jël ñu leen dox dem tuuti rek. merci li ko li ko dara ndaw def mooy ñoom. Amet Omar Ndiaye ak ak PS ak Amet Omar Ndiaye PS Amet Omar Ndiaye xoolal xoolal xoolal saxal ma la Fapal est-ce que ñu jël dem baara ji beneen taala seen suma tama ñu dem katt nday baara beneen Souleymane Thiam na ngi dina ngi kis kar dem baara nday beneen beneen dañu dem baara beneen bi gëj gëj dañu dem katt nday baara jëf ay baara taal nday beneen mu jeex

da ngay caaf defal ndànk rek ana Paa Fall. Paa Fall. xeex yëpp fee la woon fee lañ fee lu ne vidéo ñu mën ko dugal en direct ci ci site bi pour sénégalais yi jot ni Ahmed Aïdara da doon liggéey ci bureau ñu police euh, taxaw ci tali bi baare ko non seulement mais ñu néewal doole ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom dugal leen ci grippe et toute la population était témoin était témoin non non mën nga wax j'étais en OS OSR mon direct ok ah. jël ma sa waay ma wax aca c'est bon da ngay jël waaw damay wax nag waa géejawaay géejawaay koo xam ne géejawaay moo la ñor tey jii la sa bis ku rate xeex bi rate nga lu bari ndax première fois mooy Ahmed dara dañ koo fekk fee mu ànd ak am mbooloom di dox di ñëw ci tekk ak tey manifestation boo xay si ci ànd ak dal du sànni xeer du sànni dara Macky sàll mi nga xay si bi ne dictature la moom mi nga xam ne pare na pour xëcc troisième mandat moom mi nga xam ne yoon mayu ko sax mu bokk ci élection député yii forcé ñu ko di ñu jiima jaay doole dama ne mbir mi du mbiru Ahmed ñun mbiru mbir mi Sénégal la Sénégal ñu commencé ko géejewaay ak bépp gox ci àdduna dañoo war a génn yëngal dëkk bi lu mu laaj ñu jox ko ko segam ñoom ñi nga xam ne ñoo yor suñ sécurité bu dee benn cent personnes yi toog seen bureau jaral na leen ñu sacrifier askan ñun ñi nga xam ne ñoo leen ko jox ba pouvoir buñ mën di am di ko ndamoo ñun dañoo war a génn jàkkaarloog ñoom lu mu laaj ñu def ko gis nga bésub dund bésub dee xeex ngir sa réew ba faatu ci dangaa jihaad dund gu seer gi yëguñu ko yëguñu naan gu seer gi yëguñu facture bu seer bi dama ne génn leen képp koo xam ne Sénégal la ñor génnal am na Ahmed dara nag jàpp nañ ko ci jaay doole ak dictature ndax dem ba léegi ñoo ngi waajal xeex ñoom luñ leen nii ñu ne xeex ñu ne Yolmet far Ngom démb la ñuy déclaré ni jaar biir Touba ak délégation di daw waqat ñoom leader yi APR yëpp daw nañ bàyyee ñu dëkk bu dëkk bi dee tàkk ñoo koy taal ba pare bàyyi ñu fi képp koo xam ne nag am ndal lu waa nga boobul xel dinañ la jaxasee saw askan bàyyi leen xel askan xam leen ni liñ leen di fay askan wi dajale seen i dërëm ak i ñaar dërëm leen di jox ay ay loi mënuñ leen a fay ñun ñoo leen di fay xam leen loolu respecté leen ñu te ngeen jox ñu cër respecté leen ñu ñun dañoo am si suñu principe yi ñu war a xeex am droit xeex ko fu mu ñu neexee nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw comme ni nga ko gisee mu nekk toujours militant Ahmed Aïdara yi nga xamante ne nii ñu ngi wane seen colère ki nga xamante ne nii moom mooy au niveau de Guédiawaye nga xam ni le maire de la ville a été a été a été arrêté voilà. waaw soo sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu wax ñiy seetaan ñëpp di wax réew mi ñëpp que ni jàpp nañ Ahmed Aïdara noonu la ñuy jàppee Sonko noonu la ñuy jàppee également lan la bon ñii waaw waaw comme vous le constatez rek c'est la police c'est la police ah toujours comme ko gisee c'est la police euh, qui est ici. pour euh, commencer def ay ay jàmbarloo ñu nga xamante ne. dañ ñëw jaayal doole monsieur le ko nan nga ko gisee ci état bi ñu nekk. Ahmed saa buy la def këram a ngi fii mairie baa ngi nii saa xëy day dox atom du ci dugg tey daa di dox pour dem mairie waxtaan ak population Guédiawaye que ni marche bi day amam du am. ci la policiers yi ñëwee jaay ko doole jàpp ko maltraité ko mal mëne ko def leen lu leen neex jël ko taxañ taxañee mel ni ko saako ngooñ jël dugal ko loolu nag li koy faj leen kase la du waa Géejawaay kase la du waa Pikine kase la du waa Dakar kase la waa Sénégal yëpp ñooy jóg xeex ak Macky parce que Macky dafa bëgg a jàpp leader yi ak yeewi askan yëpp tëj leen ci kase ah. bu ko defee moom muy doxal mel ni buur te loolu nag du fi dama ne la jeunesse a, a été arrêtée à Guédiawaye ce qui est inacceptable ce qu'on ne pas accepter c'est pas normal ça nit waratul laaj dañ koy def lan laaj dañ koy def nit warul wax warul dox. ñu sécurité bi mel ni sécurité bi moom dafa teguwul fenn. ñu dans tout ça. xam ne ñoo ñu war a protéger protéger Macky Macky Sall la ñuy protéger. Eh, nag ñu ñu ñuy sonal juróom moo leen di fay wax dina leer suñuy patante dañuy dagg ay patante di fay lu mat sëkk. comme Macky Sall fayu leen de ñun askanu ñooy fay ñoo leen di fay kon nañ ñoo respecté jox ñu gë xam ne ay sénégalais lañ. suñuy papa lañ suñuy frère ñoo bokk Sénégal li ñuy xeex muy dund gu seer gi. Ah, li ñuy xeex ñun sénégalais yëpp ñoo ko bokk. yaa may dund kon waruñoo kar. di ñu sonal ci yenn yi. ay Aidara dañ koo jàpp jàppuñ ko ci xeex jàppuñ ko ci dara dafa am lu mu doon xeex yàlla dogal ñu jàpp ko dugal ko ci oto bi ñun nag dinañ def tout lépp loo xam ne jaral nañu ko dinañ ko def képp koo xam ni Sénégal la ñor bàyyi boo nga pare pour dee ci kaso wa ilaa nga pare fisik loolu moom na xam Ahmed Aïdara a été arrêté. Djibé Djibé Djibé Comme vous le constatez toujours, le maire a été arrêté à Guédiouaï. waaw ngeen di am noonu Djibi il est avec le maire Djibi ñu ngi la gis noonu yaa ngi yor portable maire yi sa loxo ana monsieur le maire ak euh, lu xew. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Rémy waaw euh, tey nag euh, monsieur le maire de la ville liggéey te à chaque fois da ngay def day génn fii dil bu dem liggéey naka la génnee bundu këram di dox dem liggéey ñëw ba côté euh, rond point marché dox parce que ba fu la neexee nga dem liggéey Sénégal la sant sant sa réew mi Sénégal la sant ñëpp xam ne fii dëkk teranga la kon nit mu musu ko mukki ba interdit di interdit nit mu dox wala mu dem liggéey mënu nekk c'est impossible dëgg si wax def nañ si Sonko doomam war a xel jàngi ñu ne ko doo fi jàngee monsieur le maire war a xëy liggéey ñu ne ko doof liggéey waaye Sénégal ban loi lañ fi am ban loi lañ fi am te nañ dem ba ci kanam lii ñëw ñu dëgg na ko moom ñoom moomuñu ko dëkk bi suñu dëkk ko moom bu ku xëyee ko doo liggéey jàpp bu du xataan ni yaa ñu doole jël yóbbu laaj ko Abdou Abdou Fall. Abdou Fall yor na yu bari. mënu ko génne kii moom waaw ni ngeen ko gisee noonu ñëpp ñu ngi toog le maire a été arrêté. ful benn ñàkk. ma ne ci rek. ful boobu du ko